salaamaaleykum waa mais. mais grand frère maa ngi lay bëggee di la ziar. mais Pod ziar grand ñaanal bu baax ah soxla naa ko de instant fi mu toll nii soxla naa de. <laughs> mais Pod ci loo nekk non ngi rek ngi rek si bu baax. di ko yow gis ne Baye Ndiaye da laa teg pression ah Baye Ndiaye daal teg sa ñaari mbër. non c'est man non c'est que xam nga lu garaaw ci affaire boobu ah. waaw est-ce que man saa ce que xam nga ne ah, jour bi billahi laa yo wax li ma lay wax jour bi Eumeu Sène daanoo damaa feebar hôpital laa jubal direct yàlla xam na ko billahi wallahi taala. dama feebar immédiatement laa jubal hôpital bu wakaam fa laa def jël ay garab parce que instant boobu noonu mënu ma woon waaye yow sama li ma doon rek ma rek maa ko xam ma fët ma tëdd feebar xam kan moom ma doon defal dama leen laajte xam kan moo ma doon defal waaw Sa moo ma doon defal <laughs> nekkate ngi daan ëmb seen Sa Thiès di la defal nekkate Sa Thiès a ngi waaj jël ëmb seen nekkate mi ngi négocier contrat bi si moment boobu mi ngi négocier contrat nan ma noo nan ma noo xol garaawul sa mbër bi bëri na xam nga di di dugg ci ñuy débat mu ne ma noo ba mu defee lii ba mu defee lii mais garaawul combat bi yëpp moo ko bëri nekkete yoo non sama copain nekkete mi ngi négocier bi ci suuf <laughs> non mais mais mais fii làmb toll fii làmb toll nii combat Sa Thiès diggante ma ëmb seen bopp na ci combat yi gën a nekk bomb. est-ce que man xam kañ laa xam ne dañuy bëri parce que xam kañ laa xam ne dañuy bëri. am na benn jour ñu tase am na benn jour ñu tase ñoom ñaar. am na lu xewoon noonu ñu nekk foofu noonu di ku si nekk di di di di natt sa morom. ci taay. saraxu saraxu saraxu papa yi euh, Baye Ndiaye bi la. exactement. waaw ndax ñoom boobu la yàgg boobu laa xam ne ñoom ñaar dinañ bëri mais man combat bi ba ma lay wax nii de mënu ma la wax nii ah. combat bi su amee diw laa nar a faral bu nu ma la wax loolu noonu man xam naa daal Eumeu Sène moom la moo boole moom mu nekk koo xamante ne dama ka bëgg mais mais c'est que ça billaay wallaay taalaay ça saa Thiès ñi ma ñi ma jegantew ak Sa Thiès jegantewu ma ko ak benn mbër chaque jour xoolal li ñuy waxtaan chaque jour du sax ci affaireu làmb football fii nii parce que moom supporteru Real la man mooy supporteru Milan saa yu mhm. dóor yi Milan may kaañ daf may kaañ man saa yu Real amee defet dama koy ruube ruube ruube donc du coup man moom dañuy waxtaan si lu bëri surtout mais nag si affaire football la ñuy gën a wax mhm. sama gaañ la billaay wallaay taala yi ay dëjëm combat bi di nga def stade di nga def stade kay moom faaw mu dem stade pour la première fois xam naa loolu moo ma nar a yóbbu stade ah mais mais xam naa sa ñaari xarit sa ñaari doomu ndey ñuy bëree c'est que looloo garaaw xam Eumeu Sène dafa ma tàmbal saa yu amee combat ba daan daf may invité këram ma ñëw yeddu fa donc imaginer tey combat moom ak Sa Thiès tey jii nii ma war a toog di xaar man c'est que man xaw ma ba léegi nii amaana peut-être su ma toogee jour combat bi di seetaan nii xëy na peut-être sama xool dina far ci kenn mais ba léegi may wax ak yow nii ah parce que dafa am ñaar yu am dafa am ñaar yu am c'est que Sa dafa nekk ci yoon mi dugg nag cour de grands dañ tàmm di wax rek mais soo xoolee mu ngi soog a dugg carrément ci VIP yi quoi te lii dafa yàgg donc loolu actuellement man bugguma tey jii nii Sa Thiès yoonam xaw a am fakastal quoi mais aussi mais aussi Eumeu Sène. bëggoon Eumeu Sène teg la ñaari defet. non Eumeu Sène mënu teg la ñaari defet. te bëggoon Sa Thiès tamit bëggoon Sa Thiès tamit yow am fakastal. bugguma Sa Thiès fakastal. billaay instant yii problème. mais xaw ma sama xol bi si kàlla na la jégg. <laughs> non non non li combat bi moom combat moom uti visa rek bu làmb ji jege sa rek nga dem sa yoon. non man combat moo tax xam naa ragal xam naa sax du soo soobee du ma ko seetaan damay wax gars yi dañ ma mais du mais mais fii làmb toll fii làmb toll guddi yi ñu toll làmb dafa nekk benn affaire boo xam ne nii bomb la. Eumeu Sène jël na Sa Thiès Sénégal gépp ñu ngi naan kan la Balla Gaye war a jël ah ñu Siteu. Mhm. kan la war a jël. Mhm. Tapha Tine mu ngi ah. xaar diggante Modou Lo. Ah. ak ki nga xam ne ni mooy Boy Niang. noo gisee làmb guddi yi ngi toll en tant que kuy nekk ci milieu digital làmb bokk ci ñi nga xam ne ni tey jii ci milieu YouTube ñu ëpp suivi ci làmb ci la bokk guddi yi ñu toll. non jamono ji man man yaakaar naa ne làmb euh, nii la war a mel tour le temps quoi parce que tey man pour man chaque dimanche chaque dimanche war nañ am benn affiche. bu am solo boo xam te ni ñëpp dañ koy xaar. Hmm. loolu man pour man làmb toll na foofu parce que soo xoolee ah mbër am même soo xoolee VIP yi nga xool ci suuf am na ay mbër yoo xamante ne ah ay boy yu dangereux parce que soo jëlee ay booy ñoom franc ay boy ñoom gridé ay boy ñoom ay boy ñoom fils de balle ñooñu noonu ñoom ñëpp tey jii nii chaque dimanche combat boo leen tagal combat bu mag la. waxuma hmm. sax ñu ne ci kaw mais ñooñu rek combat bu mag la donc man pour man tey làmb mun na mun na toll foofu actuellement soo xoolee jamono jii di loolu lañ am mm-hmm. jamono jii soo xoolee dimanche yi passé yëpp combat bu ñëw day neex mm-hmm. combat bu ñëw day neex gars yi dañoo gis nañ ne combat dëgg la combat royal bi Modou Lo ak Ama Baldé amoon na ampleur bu grand mais combat Eumeu Sène ak ak kii bi moo ko bi bii tamit ñëw bu mujj bi passé combat euh, lakk bi tamit ak Siteu bi ñëw gën ko neex Mhm, mhm. donc jamono jii yaakaar naa eh, ne làmb dafa soxla woon lii quoi. mais mhm. affiche yi teg affiche yi ñëw nii. benn affiche du ko daax parce que soo xoolee yaa ah, Eumeu Sène ak ak. Euh, ak ak Sa Thiès que contexte bee grave parce que tamit Sa Thiès même su nee tey du bëreel Balla Gaye par la force dina bëreel Balla Gaye ci benn coin ci bopp bi. gars yi dañ naan c'est que maa ngi seetaan léegi ah même nees li muy wax nii dinaan Boy Niang warul bëreel euh, waa Pikine loolu man Boy Niang su demee si biir arène ba taxaw te deful ci boppam ne Modou dafa daan Eumeu Sène daan daan daan euh, Ama Baldé daan Ama non loolu su ko ci bopp bi ma ko loolu foog mu def ko ci bopp bi c'est que loolu mënul ñàkk da koy def ci bopp bi da koy waale te loolu day tax mu fas jom mais lu ma siy woolu ci booy Niang c'est que Boy Niang tey comme da ngeen ko wax léegi dafa am mental mm-hmm. ku am mental ku am mental mën na bëriwaale loolu lu doon bon mooy mbër boo xamante ne amul benn mental nii dem di bëriwaale lool mën na réer mun na juum mais man gëm naa ne Boy Niang il est intelligent am na mental bu koy permettre mu dëxëñ loolu yëpp téye ko bëriwaale nekk ci moom ak Modou Lo yi nekk ci moom Boy Niang war a ñëw bëri Modou Lo Modou seen ñaari yoon këpp sa reer ñaari yoon ñëwaat fa këppaat bu Ama Baldé war a jàkkaarloog boo ñaaj ci gàttal bu ma xam ne matu deux mois loolu loolu loolu dafa métti pot. Euh, gis nga nees lu mu wax dama si d'accord ak moom ci benn côté dégg naa seen waxtaan bu baax mais dafa am benn affaire am jamono jii su amee benn mbër boo xamante ne moo war mën a daan mutlu si jamono jii nii. kan booy ñaa lay doon. boo amee mbër mu war a daan mutlu boo ñaa lay doon mais pour boo ñaa mën a daan mutlu yan mm-hmm. qualité lay yor pour loolu mën a am. Boy Niang lu mu tàmb di bëri gis nga Boy ñaan lu mu tàmb di bëri mun na daan n'importe quel mbër gis nga li ñuy wax noonu li ñuy wax noonu ne euh, li ñuy wax si en li ñuy wax ci Modou Lo billaay wallaay talaay dafa nekk si Boy Niang c'est-à-dire que tey Boy Niang man su ko doon su ma ko doon euh, su ko doon euh, wax ban genre mbër la Boy Niang man dama naan benn mélange wu Eumeu Sène la ak Lac cest dafa mel nga Eumeu Sène ak Lac nga boole mu nekk benn mbër man pour man kooku mooy Boy Niang parce que Boy Niang dafa am intelligence su xam ban moment la war a dem xam nga tey Lac am na intelligence su toog xaar mais des fois su xaaree su gisee buntu da ngay xool Lac suy dóor sax day arrière Lac dóor beeg arrière day ànd mais mm. Boy Niang dafa xam ban moment ban moment lay enchaîner action parce que si combat ak Sa Thiès dafa leer foofu si nga Sa Thiès moment yi muy accéléré yëpp booy Niang mi ngi fent ne mi ngi koy xool moo tax dafa ba mu ko naan set ko teg munul munu ak booy Niang nu mu bëree ak ak ak euh, ak euh, ak kii ak euh, ak guy gi waaw man loolu laa man foofu laa simuler sàpp Boy te dafa am waaw mais li ngay wax nii ñi nga tudd ñii ñëpp ñëpp ci làmb nag Modou Lo daa yor keneen ci ñu leen waaw d'accord na. léegi Modou Lo ñi nga tudd fii ñëpp pot. Modou Lo dafa yor qualité yi ñooñu yoru def ci làmb lu ñu def pour gañe bés yi ñooñu gañewul Modou Lo day bëri komba à l'usure day bëri komba bu gaaw te boo taxawee mu taxaw boo xeexee mu xeex boo ko songee mu bëre kon tey jii ban Boy Niang xam nga tey jii Modou ay qualité bi sax duñu fi toog naan Modou Lo fan lay jaar pour mën a daan Boy Niang déedéet Modou Lo day daan Boy du bett amateur mais Boy Niang fan lay jaar pour daan Modou Lo moom la amateur yi ba nga xam Boy Niang leen rek la moo man lu man lu ma xam man lu ma gis combat bi euh, dëgg la de man benn instant sax dama doon wax est-ce que Boy Niang combaam ak ak euh, Modou Lo warul jiitu warul jiitu sax bu Ama man loolu sax dama ko doon wax mais tey yàgg ku ci mel ni Ama damay juge si Ama ku ci mel ni Ama am na doole bi am na lépp mais peut-être Ama na insouciance bi insouciance bi muy àndal boo koy daaneel ci ci ci ci Modou mais man ba ma xoolaatee combat boobu sax man pour man Ama mënoon na fa am daal Boy Niang nag man pour man c'est le moment quoi tey jii nii Modou Lo quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse dire gëjoon na bëri man gëwuma ni Modou Lo ak ak euh, ak ak dafa def dafa indi dafa indi benn Modou Lo boo xamante ni kenn mosu ko gis Modou Lo bu garaaw man pour man nekkuloo benn Modou Lo bu garaaw franchement hmm. Modou Lo lu mu bëree par exemple maanaam tey Modou Lo lu mu bëre contre Gris Bordeaux ko contre Lac de Guiers man pour man Modou Lo lool loolu contre Ama Modou Lo yow Modou Lo samp na tànk samp na ñaari oom yi loolu penalty la jox man damaa gëm ne jamono jii nii booy ñaar est mieux placé tey jii nii pour daal Modou te te lu nit ñi foofu yaakaar ne day nekk combat bu nar a ci booy ñaa man dama am yaqin ne ah, surprise bu garaaw dina mu dina am dinañ gis ñu fa la ñuy xam nga ndaanaanu ah, xam nga Boy Niang dafa wax dafa ne dafa ne Balla Gaye si sama combat la ñuy xam ne man ndaanaan la bii nii nag mooy clarification fii la ñuy xam ne Boy Niang ndaanaan kul fadrin dina jàpp Modou dina ko duma dina ko daan ci lu simple te damay ragal mu humilier ko mhm. te damay ragal mu humilier ko cest à humilier Modou Boy Niang humilier ko duma ko non pour ndax ne ko fi di waxu wa pikin da nga far pot eum nga fi ëmb seen ñaari yoon mu jàkkaarloog Modou Lo xeexoo bëri woo ndax nekul defet yoy mo la japp ba léegi ni wa xam nga lolou du mu nek la mais man tay gis nga beure bi nga xam nga sax da nga wax ne booy ñaam mënta bañ a préparé defet yi nga xam ni amabal de Balde ko am ci kanam Modou ak ki nga xam ni tay ji <laughs> Eumeu Sène di ko wax ci kadoog mais yow dafa mel ni defe di dala bàyyi gudd ba léegi dafa mel ni dégg ko bëgg communiqué wàll lu <laughs> ma la bëgg wax xam nga mooy lan lu <laughs> ma wax loolu mooy lan ma mm-hmm. bëgg wax mooy lan mooy maanaam Boy Niang ko waa Pikine ngémbe ah. staffam gaay gaay mooy daan Modou Lo da ko waa Pikine ngémbe bu ko waa Pikine ngémbe mooy lan mooy maanaam yëpp ñu ñu ñu booloo nekk benn. kon yow. combat bi combat bi da nga koo basé wu combat Boy Niang Modou Lô da nga koo wu ci Pikine yëpp booloo nekk benn pour mën a gunge Boy Niang pour mu mën a dem. mais Eumeu Sène ak Ama dañu war a dem stade combat bi Eumeu seen Ama ñoo ko war a ngemb yóbbu ko du ci ay wax ay nii xam nga sax man comprendre naa lu tax Boy Niang demuloon stade parce que dafa nekkoon ci contrat ak yenn wax yi. bii bii nii. mais mais mais Boy Niang mënoon na dem moom tamit mënoon na dem mënoon na dem. waaw mais xam nga dafa xaw compliqué parce que dafa war a bëri ak mer mi loolu la gis nga su fa demoon waa Boy Niang yi dinañ ko gis gars yi mën nañ ko fa sànni xeer wala dara man pour man moment bii nii sax dafa war a lëlu c'est normal mu lëlu. mais lan moo tax nga ne Pikine yëpp dañoo war a génn lan moo tax nga ne Pikine yëpp dañoo war a génn pour jàppale ki nga xam ne tey jii mooy Boy Niang. parce que Pikine mooy bëri man gëw ma sax ni Boy Niang mooy bëri Pikine mooy bëri parce que xam nga lu tax. tey jii nii Modou Lo tey jii nii Modou Lo su daanee Boy Niang Pikine man man gàcce ci Pikine dama koy wax. loolu foog ñu nangu ko gàcce ci Pikine gàcce ci Pikine parce que ñett ñetti VIP yooyu man pour man ñoom ñett ñoo war a ëpp làmb ñett ñooyu Boy Niang munu Modou ñëw tër leen ñoom ñëpp tër leen ñoom ñëpp man pour loolu munul nekk loolu munul nekk donc man gëm naa ni tey Boy Niang dina sóoraale loolu te Boy Niang mbër la boo xamante ne fi ko nii lii ak lii ak lii Damien bii moo war a daan mën loolu da def cest am na intelligence boobu noonu maanaam tey fi ko ne xam nga xam nga tey mbër bu mel ni Lac de Guiers Lac da leer ne soo ko nee combat bii nii waa ji da nga war a song dox ci kawam dóor ko duma ko daan ko jëli ko du ko def parce moom dafa am dafa am dafa am ligne directrice am cest à moom nii lay bëri mais dama gëm ne Boy Niang suñ ko lii mooy daan Modou da koy def te da koy daal hmm. song bi gars yi di ragal da koy def. kon na nga jàpp ne Boy Niang ci làmb ji day ñëw dox ci ko Modou Lo. force la koy jëli xam nga lu tax Modou dafa am quoi couronne roi des arènes même match bi su ko amee day day continuer nekk roi des arènes. Hmm, hmm. te Boy Niang xam na ne Boy Niang xam na ne Modou da koy ragalee xel da koy da koy bàyyi xel donc suñu nekkee. di bëri fii ba suba suba booy ñaa songul Modou Lo du ko song du ko mësu song te Modou Lo day sóoraale booy ñaa xel xam na ne kii su ma ko songee bandi la dafa garaaw koy ragalee xel xam nga fa nga xam ne Modou Lo da ko mës a ragalee ba kay gars yi di wax Ama dafa ne dafa ne euh, euh, Ama moo gën a neex a bëreel booy ñaa donc loolu moo lay mi ngi bàyyi xel booy ñaa waaw mais soo gisee ndax ndax loolu wax boobu tamit bu ko waa Pikine déggee Ama Baldé gën a neex a bëreel Boy ndax bu ko waa Pikine déggee nekkul pees boo xam ne ni Modou Lo da koo teg seen kanam. waaw mais loolu noonu piège la xam nañ ne loolu piège la. parce que xam nga lu tax. Hmm. lu mu wax loolu noonu dey joué ci mentalu Ama. parce que hmm. Ama ak Boy Niang ñëpp ay ndaanaan lañ. loolu mu wax noonu tew ko fenn mais loolu daf ko doon wax pour jouer ci mentalu Ama parce que bëggoon na atteindre Ama pour Ama ñëw sax sax kay combat loolu kese mais tey jii ci côté mental. mais mais ndax loolu moo waxoon nee nga day tax Ama Baldé ñu sax saxee combat ndax Boy Niang bu déggee loolu bu ñëwee taxaw combat ak Modou Lo du niil bu combat bi niilee Modou Lo mooy continuer nekk roi des arènes. ci am incha allah niil du ci am xamul na. Boy Niang. c'est que Boy Niang xam benn waaw nga xam Boy Niang fan xam te ne du sax làmb Boy Niang xoolal Boy Niang mu jógee gis nga Boy Niang da doon bëri. di yéeg di yéeg di yéeg ba ci ténor yi ñu jox ko ñaari ténor muy Lac ak Tapha Tine mënu ci am victoire nit ñi mhm. bëgg ko rey nit ñi bëgg ko ne waa jii nii mënul dara ci kunkan mu ne leen nañ ma mhm. jox gën a mu ne nañ ma jox ki leen gën a garaaw ma wane li mëne muy ah muy muy muy Lac de muy euh, muy Balla Gaye kenn gënul nekk ndaanaan lamb Balla Gaye te gis nañ ko def léegi moo waxaat la beneen affaire bu yàggul bu yàggul dafa yóbbu yaayam màkk yóbbu papam màkk gars yi ñëw gànnale ñaanal ko gis nga soo xoolee parcours am actuellement boo ñaan dafa nekk ci parcours roi des arènes li ma lay wax yow gëm yow gëm nga ne par parti boobu nga dugg ci roi des arènes gëm nga ne boo ñaan le premier le premier janvier mën na nekk roi des arènes ci kaw Modou Lo da koy nekk incha allah te xam nga lu tax mais produit jël ngay engagement de. xamul nga ma lay wax loolu noonu. waaw. dafa amoon ñaari combat si ñaari combat yi nii muy Boy Niang ak Ama daf si am benn boo xamante ne mu gañe boobu moo ko gënal te boobu la gañe mais ndax Modou Lo combat bii mu gañe nii combat bii mu gañe nii gënu ko obligé pour mu gën a bañee ndax Modou Lo dégg li mu wax mooy man Pikine 3-0 laa seq ak ñoom. te trois ji li ma leen daan dama bëgg a titre titre roi des arènes ba bàyyeeg moom xool tegaatal ko waa làmb ñu bëree ko seen biir. gis nga. Euh, du ko wax de pot pot Modou lii mu wax nii xam naa ne wax boobu mënoo ko gëm. mais Modou Lo nee na day daan ñetti mbëru Pikine yi da leen di daan gis ci ay qualité yi leen mën yu ko mën a téye. Fadam lu arrangé wul Fadam wax la lu arrangé wul Modou xam nga mooy lan ñaari combat yi dafa jege. mais ma yaakaar ne loolu. maa ngi ñàkk gën moo nekk à l'aise ndax moom mi jóge ci préparation bu métti. au contraire au contraire xam nga lu tax. ñaari combat yi dafa jege. pareegul jubilé bee. gis nga combat bi. yëngu ne ni booy ñaan nekkee ci entraînement yi métti Modou Lo commencé na entraînement am yëngu loolu. non xam la yëg naa loolu mais booy ñaan moo gën a xiif gis nga li ma lay wax nii xam nga mooy lan dafa mel ni da nga xool. su nekkee wàllu football la par exemple tey nga jël benn Manchester City. Mm. am na jamono gis nga année bi ngay gagné lépp. année bi ngay gagné lépp lépp lépp lépp lépp année bi ci topp doo am même motivation bi. c'est-à-dire que question gis nga motivation bi Modou Lo amoon xiif bi Modou Lo xiifoon bal euh, Ama Balde booy supporter Ama yi sonal ko ne nan ko bëggoo dégg Ama yi Ama yi bi nga burul dégg ay ñoom demb c'est-à-dire gis nga lool Modou motivation bobu amone daf ko def ci combat bi mënul amat même motivation contre Boy Niang combat bi ki xif ki bëgg koy Boy dafa toll fo a des arènes bi fukki bo euh... euh, euh Boy a des arènes lu non lolu tax parce que motax mané la parcours bi ngay gis nga Boy Niang dafa yor actuellement nii parcours roi des arènes parce que tey dafa rampe daan ay rakam daan ay moromam mais mais pot ba pare daan ay mag pot Pikine yàgg nañoo rampe dem Modou Lo daan leen pot Lo Modou Lo daan leen waaw mais kan Eumeu Sène rampewul Eumeu Sène rampewul Modou Lo daan ko ñaari yoon Ama Baldé ñëpp jàpp nañ ne day daan Modou mu ñëw daan Modou Lo dama la fi ñu tase gis nga tey moo wax la dara tey Modou Lo benn combat nga ko doon tegal benn combat rek nga ko doon tegal ma gëm ni combat bi dina ci xiif muy Balla Gaye Modou Lo tey jamono ji suñ ko joxoon Balla Gaye amaana dina nekk combat boo xamante ni dina ko xiif mais c'est que xam nga lu lu dara garaaw wax a wax a wax a wax ba génnee Modou Lo ci combat ndax tey jii yéen waa Pikine su ma leen déggee li ngeen bëgg a mooy Modou Lo doyal na biir Pikine ah Boy Niang ñoratu ko day ñëw bàyyi Boy Niang waa réserve bi loolu ngeen bëgg a wax. non mais c'est que xam nga tey. lu may lu may lan moo tax bëggu leen Modou Lo dugg ci combat bi lan la. du ko dafa dem dafa dem ba waa Pikine waa Pikine bëggu ci ñoo communiquer. ndax bëggu ci ñoo wax ndax bëgguñu Modou Lo dugg ci combat bi. non mais bi da ko moomul du combat bi. du moom du combat am. nga seetloo tax nga ne combat bi du combat Modou Lo lu tax nga ne combat bi du combat Modou Lo. waaw kaay ma wax yow kañ nga gëj gis Boy Niang. Boy Niang dafa laqatu moo tax ma leen Boy Niang bëggut Modou Lo dugg ci combat bi. Modou Lo ba mu gis. naa ko fépp ah. fépp nga koy gis mi ngi woon ci euh, ay ñoom eh, ma Modou Lo il est pas Modou deux semaines avant après combat avant combat Ama Baldé gis naa ko ci mu dem ci ngénte. dem ci ngénte problème yooyu. yaa oustaz ndax dafa mel ni sam-sam bi war a ñëw ak tàndarma ji war a ñëw dina ne li problème. non li ma lay wax nii ah c'est-à-dire que li ma lay wax nii ah booy ñaa booy ñaa ah, moo wax la ñetti affaire mu loolu daxul bëri booy ñaa ëpp ko doole. dégguma ñaar yooyu noonu Modou Lo dàqul bëre Boy Niang ëpp ko doole loolu dañ koy sóoraale bu baax bu dee da bu dee xeex bu dee xeex yaa ma gën a xam gis nga bu dee xeex gën xam ne daax ko xeex mais xam nga seek lan la booy ñaar dafa am en fait Modou am benn affaire képp ku muy mënti xeexal dina la dóor da lay touché force loolu yàllaa ko may mais dama ne booy ñaar booy ñaar mës a gis gisuguma ko fu mu jëlee ku dëgg ci làmb voilà léegi bu fekkee ne Modou Lo daa touché booy ñaar nag léegi lu yam xam nga yi dañ tàmm di wax benn affaire gis nga boxeurs yi dañ tàmm di wax benn affaire ki la daax xeex ki la daax xeex mooy ki nga xamante ne ah doo ko touché kooku nangu naa li nga wax nii yëpp nangu naa ko waaye sama question bi tontu woo ma ko. bu fekkee ne ñaam mi ngay wax daa ñëw ci làmb ji jël ku nag. waaw loolu noonu c'est-à-dire loolu loo xamante ne pare na ko te par la force day jël ku Modou Lo ñaa xam na loolu. ah. booy ñaa mais man mais man lan mooy seen Lo lan seen problème ak Modou Lo. ban problème ñaa a xam ne day jël ku Modou da koy jël force da koy jël. mais ban problème ngeen am ak Modou Lo mais bu ngeen jëlee coup bi ndax ndax du yàq seen lamb. non yàq lamb non dañuy waxtaan wuy ma pot. Modou Eumeu Sène daa jël coup Modou Lo lambam yàq. Ama Baldé daa jël coup Modou Lo lambam yàq ndax Boy Niang bu jëlee coup ba lambam yàq. merci bonne question lambam du yàqu dana kaay ma wax la moo tax lamb ji parce que ñi jël coup seen koom ñi jël coup seen lamb yàqu yëpp. sóoraale wuñu coup bi wala dañ doon daw coup xam nga mooy comme kat. Mhm. gis nga combat Gris Bordeaux Modou Lô. xam nga mhm. Gris lu tax daanul Modou Lô. waaw. dafa sóor Modou Lô combat bi yëpp parce que danaan booy bi dafa garaaw. di calculer chaque instant fu mu sëggee nga sëgg fu mu defee nii nga bougé waat moo tax quatre appuis la mujjee. lak lak cinquante combat du daan Modou Lô. lak cinquante combat fi nga ko tegoon di dëkk di koy tëkk chaque dimanche du daan Modou Lô parce que dafay sóor Modou Lô ba mu ëpp. mais c'est que baax nga jàpp ne Boy Niang du suur Modou Lo nga jàpp ne Boy Niang du suur Modou Lo mais da koy sóor mais xam nga sóor bi mooy lan da xam ne kii la dama koy jël mooy maanaam waaw mais Pod man li sa problème li sa problème ndax nekkul erreur ndax nekkul erreur ndax nekkul erreur Boy Niang di bëreeg Modou Lo bu diire ndax jotul Boy Niang arbitre bu sifflé mu ñëw jeexal diggante moom Modou Lo ndax Modou Lo bu nekkee en bu ñaqee làmbam xeexam day feeñ bërim day feeñ te day gën a nekk ci combat bi te kay wax la ñaari baat parce que fi làmb toll fi làmb toll Boy Niang bokk na ci mbir yi ëpp qualité ki làmb Sénégal. mais wax nga combat mais Modou Lo Modou Lo mooy mbër mi gën a naqaree bëri Sénégal ndax benn Modou Lo dina xeex dina bëri te ndaanaan la te daa mën géew te bu comme Boy Niang bu mënta daan Modou Lo ci cinq minutes yi du ko daan loolu moom dama koy teel a wax. cinq minutes du njëkk yi bu ci Boy Niang daanul te bu ngeen niilee Modou day roi des arènes trois heures yi dee na wax la benn affaire léegi wax la benn affaire. nga nga wax nga combat bi deux minutes. boo ñaaw Modou minutes. du def deux minutes. du def deux. pour li nga xam ne foo ko teg nga wax. mais parce que Modou parce que Boy si xam na ne su combat bi su combat bi plus de deux minutes na. mais pour man dama gis dama mos a gis Boy Niang arbitre bi mu ñëw jeexal làmb ci deux minutes mosuma gis Boy Niang def parce que xam ne a daw ci làmb. parce que a loolooy daan Modou xam ne loolooy daan Modou Lo te da koy def. mais ndax bu ko defalee Boy Niang di ngeen ko di ngeen ko def loolu mun. voilà fa ngay xamee ndaanaanam fa ngay xamee ndaanaanu Boy Niang. combat bi day commencé mu song ko duma ko daan ko ñëpp daf seen génn gars yi naan attends kii Boy Niang la wala du Boy Boy Niang dafa xam maanaam suñ ko lii mooy daan mbër da koy def combat tey maanaam tey. man pot pot damaa yaakaar da ngaa fàtte da ngaa fàtte Modou Lo quoi ko fàtte. waaw yow déglu loo man Modou laa lay wax. Modou Lo rek laay damaa yaakaar ne damaa yaakaar da nga fàtte kan mooy waaye man déglu loo de man deux minutes. deux minutes xoolal xoolal fi ko ëmb seen àgg. waaw mais. moment bii nii ñëpp xam nañ ne instant bii nii euh, mu euh, ëmb am na blessure si tànk moment bii nii tànk bi nee na moom tànk bi nee na teg bi nee na teg. ah la ilaha illallah xam nga li sa problème xam nga li sa problème. waaw man li sa problème mooy man Modou Lo mi ma gis nii Modou Lo mi ma gis nii. ak li ma dégg ci communication moo ko mën naa nangu mbër mu nekk daan ko mu nekk mbëru pigin waaw sànq nag dégg naa la ngay wut wàllu non du question wut wàllu de kii kii dafa yéeme de lii waaw mais xam nga man Modou dama kaa nangul de wéyu la bandi la parce que tey mbër boo xamantene ne tey dalay leer ne koo xamante ne mbër boo xamante ne fu saa yoo bëri moom da ngay jël kuwam loolu mbër boo dafa danger mais mm-hmm. da ngay seetlu lan moo tax lan moo tax Balla di ko daan mais Balla est mais natt yi boo ko nattee boo ko nattee boo ko nattee ci Balla Gaye numéro 2 daan na Boy Niang daan na ko te Balla Gaye daan Modou Lo ndax boo Niang bu indee loolu du nekk erreur pot. ndax Modou Lo dafa am ay qualité yoo xam ne nii Balla Gaye ko daan. mais Modou Lo dafa yoo xam ko. yoo xam ne nii ci niveau entraînement Modou Lo dafa raw gars yi ci entraînement. Modou loo dafa raw Sénégal ci entraînement te dafa man gis naa ne Boy Niang Boy bi mu dalee entraîné contre Modou Lo lu mat quatre mois ngi nii wala jàpp cinq mois yoo xam ne Boy Niang teggiwu tànkam. merci Boy Niang mu ngi liggéey te gis naa ko mu yor masse muscle bi mu yor ma Balla Gaye numéro 2. ca ca ca ca fële gis naa Boy Niang yor loolu gis naa vidéo yi gis naa lépp mais li ma la bëgg laaj te bëgg la ko wax pot. waaw waaw ndax mental wala entraînement. wala doole wala mën a xeex lan nga jàpp ne mooy daan Modou ndax loolu yëpp mbër indi na ko fi mbër indi na fi doole indi fi mental indi fi lépp indi fi mën a xeex indi lépp te daanu Modou léegi ndax Boy Niang gis nañ ko mu nekk benn mbër boo ne nii gis nañ ko mu ñëw taxaw ci surface Balla Gaye numéro 2 gëdd Balla Gaye Balla Gaye raisonné mu dajeeg moom daan ko jël bu rëy waaye ndax Balla Gaye numéro 2 ak Modou benn la ndax Balla Gaye loo ko woo ci làmb di la ci wuy ci mais Modou Lo li mu ko arrangé lay def géew lu ko arrangé wu du ko def Modou du bëri erreur sa rare ngay gis Modou Lo bëri erreur ci géew ndax Balla soo ko préparé six mois la nga ko préparé da nga koy fekk ci géew ba mais Modou su gëddee Boy Niang wala Boy Niang xam nga Modou Lo dafa arrière Ama Baldé déglu baax li ma lay wax te kenn yaakaar wutoon ne Modou de day arrière Ama Baldé léegi Modou Lo arrière Ama Baldé pot nga ne lan moo may lan moo dugal Modou ci biir combat bi mais li xam la moo ko dugal dugal dafa yàq stratégie Ama Baldé ndax noonu bu ndax ko yàq coup bi ba ba muy arrière ak di Ama di ñëw Modou Lo dafa ànd ak benn coup ba mu nee nii daf ko dóor benn coup léegi Modou Lo ba mu sentir ne dóor na ko ba Ama arrière ci saa si Modou Lo looloo ko may confiance mu dugg ci combat bi daal di sëqatal Ama a combat bi dëpp mais Modou mais Ama moom moom combat bi lu leen nañ laa lay wax kon loolu la dégg naa nga wax fi ay ay version yu bëri. yaa ngi woote gis naa la yaa ngi woote wàllu. ne Pikine gépp nañ génn dajaloo. woote woo li ma wax dafa leer li ma wax dafa leer xam nga loolu lan la kaay ma expliqué la. premier combat Balla Gaye ak Modou Lo dafa seetaanaat combat gis nga Modou Lo dóor na Balla benn uppercut boo xamante ne keneen ku mu nekkoon ku doon Balla Gaye da ngay génn foofu noonu jéem a taxawaat mais hmm. Balla Gaye jéemul benn yoon dafa enchaîné combat ba ba ba bam kay daan. deuxième combat bi même chose ba ñuy dóor coup perdu yooyu noonu ah dóor na ko ci benn mais Balla Gaye arrêté wul benn yoon ba à un moment donné moom moo mujjee sëgg c'est-à-dire que tey ne day mujj bàyyi te loolu yëpp Ama Boy xam na ko Ama amoon na loolu début mais maa ngi lay maa ngi lay laaj maa ngi lay laaj question boo xam ne yow doomu ci tontu te dama la koy laaj. mooy lan. lan la Boy Niang mën a teg Modou loo xam ne ni tey jii. Modou Lo dina war a ci combat boobu. voilà lenn rek la c'est simple. combat bi ni ni prix prix amul ay balancement de bras yooyu amul. booy ñaar taxaw fixé ko su ko fixé xam nga day mbépp rek mbépp lay def rek Modou Lo sëgg Modou Lo xam naa bëreem Modou Lo dama ko moom rek lay su xoolal rek lay def day sëgg dóor nii su dóoree à la fin day mujjee. day mujjee son boo yaa jàpp ko def ko lu muy def na ko fixé rek na ko fixé taxaw c'est-à-dire que na na suul ay tànkam fixé taxaw amul ay balancement de bras amul combat rapproché booy ñaar suy. gaa gaa gaa yi ci commentaire yi nee nañ gaa yi ci commentaire yi nañ bu Modou Lo daanee Ama Baldé Pikine léegi loolu lay sant. bu Modou Lo daanee. booy ñaar Pikine loolu lay sant. loolu dégg la wax man man loolu dama ci d'accord ba nga xamante ne maire bi la ñuy jël jox ko xaw ma maire kan mooy maire Pikine mais booy ñaar bii baa dañ koy woo jël jël maire bi. mais mais mais mais ci ban préparation fi ñu tegee foofu mooy ci ban préparation nga jàpp ne tey jii booy ñaar mën na faa jaar pour mën a entendre li mu bëgg a def ci moom moom loolu. sànq da ko doon wax sa wax mais loolooy am incha allah te loolu lay def. ndax yow gëm gëm gëm maas waaw. day liggéey masse vous Boy Niang day Madame masse bu am doole manam masse masse doole ju bëri rythme indaale doole endurance même si du ko soxla ci combat bi rapidité rapidité ça la soxla ci bi combat bi cest à wow kong ba pare dafa am ben wax jo xamantene ne ah, Boucher dafa wax vous ci xel Boucher limi wax lu des fois day ci xel dafa laale ak mbër yëpp mais kan la wax ne moo ci ëpp doole. dafa ne la Boy Niang dafa ne la Boy Niang moo ci ëpp doole te loolu dëgg su nga Boy su indee masse bu am doole su indee masse bu wow koŋ indi ko doole ëpp ko doole ba pare indi rapidité intelligence am da kay may mu daan Modou Lô loolu da daan Modou Lô du leneen Malade, combat bi gëm nga ne de mën nañ cee booloo nekk benn ñoom ñëpp gëm nga la parce que combat bi dañ koy yéene ñoom en fait combat bi dañ yéene booy ñaar xam nga lu tax xam nañ ñoom seen biir su leen su leen waa ji ñoom donc ils sont obligés Donc ils sont obligés mais kon kontaan naa kontaan naa ci yow. maa gën a kontaan maa a kontaan <laughs> jaajëfate jaajëf. <laughs> non waa Pikine waa Pikine yërëm naa leen man Seydina Mohamed non waa Pikine pression bu rëy lañ ku di ngi toll pression bu rëy rëy rëy